teewlu seen journée alxuraan ak xasaayit ñoo ngi fii ci Colobane ci kër Serigne Touba gi ñoo ngi nii ak Serigne Mame Cheikh Samb bokk ak ci jëwën yi nga xam ne ñoo saytu wàññi ba mu toll fii ñu toll kon dañ koy bàyyi mu nuyoo pour ñu soog a dugg ci waxtaan bi kon Mame Cheikh Samb bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sant yàlla sunu borom julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant xaadimu rasul sunu yaakaaru tey ak ëllëg di sant sunu sëriñ suñu yaakaar sayxu saalixu mbàkke di ñaan sunu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem di ñaan yàlla dajariñoo ngërëmam ak tawféexam ci bis bu sell bii nga xam ne tey moo ginnaaw yàlla moo ñu fa dajale ku nii ñu koy fàttaliku di ko ñaanal di ci ñaanale suñu bopp kon sëñ Cheikh ñu delloo la kàddu gi ci lépp loo bëgg a laaj ci lu jëm ci bis bi ak lu jëm ci wàllu maanaam euh, waañ wi nga xam ne ñun ñoo ko ñoo fa nekkoon maanaam danañ la ci mën a leeral bu baax a baax. sëñ Mame Cheikh Samb bu ñu xoolee waañ lu metti la ci bis bi nga xam ni moom la ñuy def fii nii ku xam ndongoom sëñ xam ne ku tàmm lekk gu nooy la ku tàmm lekk neex la kon bu ñu wax waañ kon xam naa lu jafe yokkoon ci bis bi la yokkoon fan ngeen ko jaay kon ba toll fii mu toll. waaw dañuy sant yàlla bu baax ndax euh, loolu lépp ci ndimbalul sëriñ Saliou la ndax bu ñu xoolee bis bi euh, bañ ko sosee ak léegi léegi mu am ay at. waaye day mel ni at mu jot bala ñoo jublu ci waajal gi rek daanaka bis bi dana des weer ca yàlla xam ne bu bis bi des wee weer du ñu yor ñaar fukki dërëm yu ñu moomal suñu bopp waaye bis bu ñu demee ba àgg ca bis ba rek ay million lañ ciy dépassé ca million yi tamit ni ñu koy dépassé ci mbokki taalibe yi ak mbokk yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk pas-pas bokk lu ñu yëg ci sëñ bi ci ñoon la jógee ba yàlla dogal na tey maanaam li nga xam ne tey moom la ñuy ci xéewal maanaam bu ma ko xaymaa war togg toll ci fukki mbana ak ñett yoo xam ne fës nañ ko togg fas yéene ko togg ci ñam yu mucc ayib jox ko mbokki taalibe yi yàlla dogaloon na fàggu nañ ci ay lu toll ñett nag yoo xam ne yu mucc ayib yoo xam ne tamit defar nañ leen ngir xewal yooyu ñett na yooyu tamit wax dëgg yàlla fàggu nañ ko ci ci ci ci ci ci gën gaa sell fàggu ndax euh, mbokki bari na mbokki taalibe yu ci jàpp ba nga xam ne comme ni ma la ko waxee ñi ñu bokkal pas-pas ñoo tax loolu lépp jàppandi kon yaakaar nañ ne bis bi daal maanaam wuyu na borom ndax ñun ñu koy def saa bu ñu demee ba mu jegee si dañuy am am tiit waaye bu demee ba des ay fan rek xéewal yi day jóge foo xam ne ñun ci boppam day kawee ci ñun ba nga xam ne maanaam duñ xam sax fam fa muy jóge ca loolu ñi sopp Serigne Saliou ak ñi ko yaakaar ci doyloo ko ginnaaw yàlla loolu moo tax ñu jàpp ci bis bi ñu liñ li liñ koy waxee mooy mboolem xéewal yi gëm nañ ne dana doy ba ñëpp bàyyi ko fi mboolem lu ñuy naan ci lu sedd dana dana doy ba ñëpp bàyyi ko fi maanaam kon loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax di sant sëriñ Saliou comme ni ma ko waxee parce que Serigne Saliou suñu dund lépp buñ ko ko joxoon mënuñ koo fay ndax biñ mënagul dara xamaguñ dara xàmmeeguñ ndeyjoor ak càmmoñ lañu suñu waajur jël jox ñu Serigne Saliou mu jël ñu def ñu ci ñun loo xam ne nii wóor nañu ne ndey mënu ko ci ñun bàyyi mënu ko ci ñun ba lépp maanaam defal nañu ko kon dañuy sant Serigne Touba bu baax a baax. ci loolu nga xam ne tawféex la joo xam ne seriñ Touba sédd nañu ko bañ jaar ci loxo Serigne saaliw ba mu yaruñu ba def ci ñun loolu mu def ci ñun. kon fii àdduna di tukki bépp donga boo xam ne Serigne Saliou wala yar rek yaakaar naa lépp loo xam ne nii yaa koy yëngul Serigne Saliou maanaam loolu da kaa war a am mbégte am ci kontaan te loolu ñun am nañ ci yëg bis bii bu jubsee dootuñu am sox suñu soxlay bopp duñ doon ko xàmmee dootuñu amati suñu yittey bopp lépp ngir bis bi jag feek bis bi jàllul. amul kenn koo xam ne da nga jéem a am lenn soxla yoo xam ne da ko doxal sa bopp wala nga wutal ko sa bopp ca loolu comme ni ma la ko waxee dañoo xam ne sëriñ bi jaral na lu jaral nañu lu ëpp loolu ndax defal nañu loo xam ne nii ndey mënu ko bàyyi mënu ko mbokk mënu ko kenn mënu ko kon dañ koy delloo njukkal ci lii bis bi tamit ku fi ñëw yaakaar naa dootoo ko manqué ndax benn bis la li ma jàpp ci royukaay ci bis yi ñu defal sëriñ Saaliw ndax boo ñëwee dalay puukare doo ko gis daray àdduna doo ko ci gis jàng alxuraan jàng xasida waxtaan ci sëriñ saaliw dollante kenn ku ne mbëkk ak kontante xéewal yi ñëw nga xéewlu yaakaar naa lool la lool loolu ca loolu la sëriñ bi nekkoon ca bis bi képp ku fi ñëw maam loolu ngay gis loolu tamit dama jàpp ne moom moo ko taxawul boppam ba yàlla tax mu agsi fii mu agsi kon ñun liñ ci doon dox ak liñ ci doon wax wax dëgg yàlla xaj na maanaam maanaam lu lu mënta ñàkk la rek ñu naan ñii ñoo nekk ci bopp bi ñii ñoo dox waaye ñëpp feeñal nañ ci seen yéene kon dañ ciy sant sëñ tubaab bu baax di sant di doolee gërëm sëriñ Saaliw di ñaan yàlla suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem mboolem dongab tërbiye bu ci jàpp mboolem soppab sëriñ Saaliw bu jàpp ci liggéey bi la nga ca def sëriñ bee ko gën a xam ñu ngi ñaan sëriñ bi fulal la ko defal la lu kawe sa njot ñu teewe ko ay ati at daje cee ngërëmal sëriñ Saaliw li nga xam ne jox nañu ko ñuy ñaan suñu borom ngeerum loolu fu mu tollu muy gën a yees ci ñun di gën a dëgër ci ñun kon ñi ngi sant bu baax a baax sëñ Cheikh kontaan nañ lool wax dëgg yàlla suñu sama xol dafa tooy mënuma wax parce que dama am kontaante lool ndax mënumaa jëfal sëriñ Saliou lu gën a rëy lii mënuñoo li des ci àdduna mënuñoo defal sëriñ Saliou lu gën a kawe lii jàng ay kaamil wàcce ay salaatu ala nabi jàng xasida yi sëriñ Touba yi waxtaan ci sëriñ Touba berndeel gan ñi toppatoo leen maslaa ak ñoom ba ñu de ñu delluwaat fañ jóge woon ñu ñaanalante ñaan suñ borom fekkee ko ay déwéni déwén ca defal ñu lu kawe suñ jot suñu xol sedd na lool am naa mbégte lool sama xol tooy na. asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki jullit mbokki taalibe yi ñuy teewlu seen dund alxuraan ak xasaayid bi ñoo ngi fii ci waañ wi njëkk ak fekk suñu benn jëwrin Serigne Mamour Seye bokk ci jëwrin ñi nga xam ne ñoo jiite wàllu waañ wi di ko saytu depuis démb ba léegi ñu nekk fi di saytu wàllu togg kon nañu koy bàyyi mu nuyoo ñu soog a dugg ci waxtaan bi waaw ah, jërëjëfe Serigne Saliou jërëjëfat Serigne Saliou jërëjëfat Serigne Saliou ngi ñaan ci barke Serigne Saliou euh, lépp lu ñuy def rek yàlla ñu Serigne bi dimbali bañ koy mën saa ne waaw comme ni ngeen ko waxee moom waañ bi moom day mel ne euh, comme ni ko jëriñ Cheikh waxee rek day mel depuis démb ba léegi ngi fi di saytu wàllu waañ bi waaw maanaam bëgg lépp bis bi rek mu jag rawatina. li si ëpp solo mooy euh, berna yi waaw comme que dañu fa dañu fa féetale moom li ñu siy def moom mooy fexe ba lépp jag rek ndax sëriñ bi moom mënuñu ko defar lu lii rek waaw ndax lii lañu am suñu diggante ak sëriñ Saliou muy bis bu dellusee ñu koy màggal di ko sant jënd ay gàtt tuut deret jubli si sant sëriñ Saliou te day mel ne bisi tey moom. gàcce ne bépp bi fi mës a jaar ndax bu ñu xoolee daaw euh, mën nañ ne li ñu li ñu def ren defuñu ko daaw ren la gën a la gën a yokk waaw mu mel ne daaw dañuy defoon 15 mbana ren sëriñ Touba euh, dimbal nañu euh, àgg nañ si 23 mbana waaw at yeneen i xeet yoo xam ne waaw lépp gis bee ko waral waaw te jublu jubluñu si lu ñu sant Serigne Saliou waaw moom daal Serigne bi leen jubloo. delon njukkal nam mënuñu ko waye dañuy jëm suñu kem katal am suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm yi jëm ko delloo waaw nax ñun waaw ñun dal lu ñu defar Serigne Saliou du doy lu ñu defar Serigne Saliou du doy waaw dañuy jëm rek suñu kem katan di ñaan Serigne bi dimbali ñu si katanam, may ñu ay xewuli bare bare bare bari ñu yag fu lolu ta and ak wér yag ko koo ci si waaw nax mbolo mi ni mi bari bare ñepp Serigne Saliou leen te ku fi ñëw ku ne sëriñ bee tax nga ñëw fi muy liggéey bi ñoo bokk waañ bi jaru may lim tu ndax su ma limee damay jum waaye ñi ngeen fi seen muy soxna yeeg ñëpp rek ñoo topp suñu ginnaaw di ànd di liggéey sëriñ bi wax dëgg yàlla ñëpp déggal ñu nag hmm? tur bi sëriñ Mamour Seye Touba Xelkom jëwriñu waañu ndongo tarbiye waaw dañ ko def nag waaye mënuñu ko dañuy jéem rek waaye sëriñ bee ñu dimbali nag ba ñu am si xam-xam bi ñu si am ba di ko jëfee waaw mu doon lu ñu mu doon lu ñu neex na lu ñuy noosoo waaw li may faral di wax na du ma ko defal kenn ku Serigne Saliou du ma toggkatu kenn toggkatu Serigne Saliou laa ku ma woon Serigne Saliou ngir ma toggal la ma toggal la te Serigne Saliou tax lu weesoo Serigne Saliou du ma ko def te nag bu nee Serigne Saliou toggkat Serigne Saliou mooy lu jublu si mbiru Serigne Saliou maanaam liggéeyal Serigne Saliou muy cant yeeg xew-xew yi suñu xas yeeg yooyu waaye yeneen i xew-xew man du ma sëriñ Saliou laa jubloo liggéeyal ak si dongo yi di sàkku nag li ñuy def nag sëriñ bi dimbali ñu ba ñu am may ni si xéwal yoo xam ne dañ koy dañ ko koy delloo waaw moom daal ah, dañ suñu xol a sedd ba mënewuñu wax tey waaye santaat nañ Serigne Saliou daal di sant mbooloo mi ñu àndal ñëpp nag di ko tàmbalee si jëwriñ Abdou Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ njabooti ni ñu ñëpp ndax lépp mooma lépp mooma ñu ngi koy santaat bu baax ak Xaadim Gueye moom daal gaa yëpp ñu ngi leen di sant ndax ñoom ñooñu teete bañ toll fi ay xale yu ndaw lañ waaw jëmuñu fenn ay xale yu ndaw ñoom ñooñu jàngal li yëpp ñuy def kon ni ngi leen ñaanal daal si barke sëriñ bi yàlla na sëriñ bi gën a taxaw taxawuñu ñu taxaw mbooloo mi nag saytu ñu déwéne ñu am lu ëpp lii si barke sëriñ Tuubaa waaw ñi ngi ñaan sëriñ Saliou yàlla ñu gën a dolli xéwal si barkeem